mbokk internet Ndam TV dal leen ak jàmm ci seen flash d'information kii di Mamadou Cissé nekk président bu union nationale des privés laïques bu Sénégal nag moo ngi sàkku ngir ñu respecter li di école privée yi ndax rek jàpp na ne semaine bi ñu weesu ñoom yooyu la école jàngu ñu jàng bu jaar yoon li ko waral rek mooy grève yi nga xam ne école publique yi ñoo ngi ko doon def ñi di waa coalition nationale pour l'éducation pour tout le Sénégal di ak waa membre bu comité national bu dialogue social ak secteur de l'éducation jàpp nañu ne nag pour dakkal grève yi ci école yi nag ak sax université yi il faut que ñi nga xam ne ñoo ko jiite daal di dépasser loolu te xool li nga xam ne mooy intérêt askan wi ndax jàng mooy jëmale réew kanam fële ca Kédougou nag ñi di district sanitaire ba nag doon nañu organiser li nga xam ne mooy ab journée ngir delloo njukkal ñi nga xam xam ñooy acteurs communautaires yi lu toll ci fanweer ci ay acteurs yoo xam ne ràññee nañu leen foofu ca Kédougou ci seen ay engagement ci wàllum wérgu yaram ci atum 2021 fële ca ci Gicoor nag ñii di transporteurs yi dañoo rek daal di boycotté li nga xam ne mooy pont bu Marsassoum ndax rek péage bi dafa euh, mujje am doole gannaaw woote bu organisation bu société civile ba nekk sa région bu Kolda Sédhiou ak Ziguinchor Podor tëj nañu guichet ba fa nekk di tablo Marsassoum ba keroog ñuy jot ndigal aada ak cosaan capitale bu senegaal bi di Dakar nag dina bokk ci festivalu Musem siti nekk sa Bruxelles ñu jàpp ko ñetti fan jàpp ñaar fukki fann ak juróom ñaar ci weeru février ci boobu festival nag dinañ fa wane lépp luy aada ak cosaan yu bàyyeeko fii ci Sénégal xibaaru tàggat yaram ñi di gaynde yu Sénégal nag dinañu jongante tey ci àllarba bi ak ñi nga xam ne ñooy étalon yu Burkina Faso bu juróom ñetti waxtu jotee ki di Aliou Cissé nag ci ab conférence de presse daal di dañ wax ni rek jongante bi du yomb waaye woolu na équipe am te jàpp na ni rek dinañu qualifié ci final bi ñu jeexalee ko ak xibaar xibaaru bitim réew fële ca Guinée Bissau nag jàpp nañ ne ak dal am na fa gannaaw ab coup boo xam ne doon nañ ko fa waajal ba tax na kii di Omaro Sissoko Embalo wax ni rekk boobule coup dafa nekkoon sous contrôle ba tax jotul antu mbokku téléspectateurs yi fi lañuy ñuy ndar keppee xibaar yi di leen jox dig daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf